asalaamaaleykum mbokk Internet. yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar euh, di wax képp kuy gan ci chaîne bi ñu ngi lay ñaan nga abonné te bës bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal rek nga bokk ca ñu koy njëkk a gis wéy leen di liker wéy leen commenter également te di partager vidéo yi c'est très important euh, mbokk yi ñu ñëw ci ci ci ci match bi doxoon ci diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire mu nekkoon match boo xamante ne pour CHAN 2023 la donc muy gaynde yi la koy donc mu nekk match boo xamante ne Sénégal moom moo 1 bi à 0 mais ñun dañuy def suñu petite analyse euh, bu ndaw rek ci match bi parce que euh, liñ ci jot setan euh, seetaan y a des y a des boy yo xamantene dañ ñoo impressionné ci bile match il faut ñu citer len mais aujourd'hui on a vu une équipe du Sénégal bo xamantene jouer joué nañ un beau football donc un football très attrayant donc mom lañ gis ci ci ci ci boy locaux donc toujours li ñu faral di wax rek moy euh, boy local football local moom amna boy yo xamanteni ils sont très talentueux donc ci match bi gis nañ boy yo nonu par exemple Lemine Camara Lemine Camara dem man wax na len que boy bi c'est un jour d'avenir un jour talentueux bo xamanteni Sénégal warna euh, compter ci mom donc aujourd'hui gis nañ euh, mu def un match exceptionnel donc ak avec son gros volume de jeu donc euh, man daal li ma ci li ma ci li ma ci li ci wax rek mooy malheureusement euh, penalty bi nga xamante ne raté na mais il a fait un match extraordinaire même bii bi nga xamante ne Sénégal dugal na ko ci moom la jógee parce que moo tour coffrant bi mu dar ci euh, poteau bi donc ki nga xamante ne mooy Moussa Ndiaye dugal bal bi mais également am na beneen booy boo xamante ne tamit waxoon naa ci moom muy Moussa Kanté waxoon naa leen que ne boy bi bokk na joueurs yi nga xamante ne war nañu la suivre ci Bilesan donc parce que def na saison bu baax ak club am ak du, Dakar Sacré-Cœur. Mais également, aujourd'hui, il a fait une match exceptionnelle, donc euh, petite euh, donc, par la taille, mais rapide, virevoltant et provocateur. Donc, match Donc, il y a beaucoup d'occasions à maintenir, créer, moi,

Euh, vraiment kon li leen leen andi doon de moo koy leen di liker wéy ngeen jëf.